ville de Dakar moom toogul bi mbas mi commencé ba tey donc bëggoon nañu sax teel wàcc ci terrain bi waaye xam nga comme regroupement yi ni ñu ko waxee woon ci début bi moo tax ñu xaar ba ñu xaaree nag waaye 23 juin ñu gis ne affaire bi métti na faw ñu wàcc fa nga xamante ne sax ñu bari découragé woon nañu wax dëgg ñun ñoo nekkoon ci terrain bi ànd ci nag. ak ay acteurs yu bëre yo xam ay organisation communautaire de base muy bàjjenu gox yi délégué de quartier yi ñu and ci ak ñu bëre damay baña sax euh, wax djoum waaye croix rouge ak rock bac ak mutuelle yi ñëpp ngi si won CVAV scout yi ñëpp ñu and ak ñun sur le terrain bare nañu bu kulim djoum ñu def liggéey bu am solo euh, di wax population bi ñu sol seen masque yi ndax yaakaar naa ne euh, takk masque bi sax mooy mesure phare bi ci mbas bi mbax boo takkulee masque même bo raxasoo ak leneen du doy tak masque bi man euh, xalaat naa ne mooy mesure barrière bi njëkk bi nga xamantene ne ñëpp ñoo ko observer. indi nañu ci commune bi lu mat euh, lu mat 22000 masques dal à peu près yo xamantene dañ ko dañu jox ben patch bi dañ ko jox ay acteurs yo xamne ne ñu ngi ci commune bi muy délégué de quartier yi.